Sëriñ Tuuba moo may gi xanaa gabon nga kongoore gile may kay xanaa aras moom Issa Mbacké moom mi ngi juddoo Touba Touba Mosquée yaroo fi jànge fi maanaam la lépp daal Touba laa ko defe génn dem ci sama kër rek daa moom ma génne Touba te njaareem laa ko defe soxna maam isa mbaag ak lu kafe tur bi xam nga man dama yaroo ci keppaaru soxna Astu Gaawaan bintu Cheikh Ahmad Bamba la ma fa yóbbu woon nag mooy sama mag ba ñuy wax soxna maam Faati Mbakke di taw sëñ Moodu moom lañ ma joxoon mu nekk ci keppaaram yaroo fi ma màgge foofu màgge fi ba soxna Astu Gaawaan gis ma ràññee ma ci gone yi benn bis mu woo ma jàpp sama loxo ne yàlla tax ma bëgg la sax def naa la ngay sama doomi xol daal di ne ma bu subaa loolu bu set sax ma répété ko boo xëyee suba teel na nga ñëw bindal ab téere te booba juróom-ñeenti at laa am bi ma xëyee ma dem suba teel sept heures de matin ma bind ab téere ci loxoom bu sell ba takkal ma ko ni ma demal dina baax loolu rek la ma wax bi ma demee ba ba xàmmee nag sama xel nekk si lu tàngal kafe di joxe maa ngi ko njëkk a tàmbalee njaareem ci jumaay sëñ Tuubaa daal di ko daan yóbbu dimanche bu jot ba ma dem njaareem doon xale bu ndaw di ko def addi Sëriñ Tuubaa ba bàyyi moor soxna loo ma yor jiite daara kaamil di laat kafe kan moo ko fi indi ngoone gi ko fi indi fi mu dëkk mu laaj ma ma ko man doomi seigne Modou Faty la dama fi indi ci fan yi waaye café gi dama koy def adé seigne Modou Faty seigne sëñ soxna Astou Gawane koy def mu ne ah man dama mosaguma gis kenn ko fi indi café li yow da yaa ngi liggéey liggéey bu re fofu la liggéey bi tambalé nak may tangal café ci joxe ba yëkëti fi daayira maam jaar fekkon jégg ji ñu yor ab tour di teug di fecc mu ne len su pen ñu ko def daayira maam jaar ba ma yëkkatee daayira bi ñen ñi bokk ñu ci dis bàyyi ñi dem ba yegg ñëpp bàyyi bàyyi ma xalé yu ndaw ñu xam ne maa leen daan jangal si nit di and ak ñom dem Porokhane ba ma njëkkee dem Poroxaan amuñu woon luñ lekk booba sama waajur wu jigéen moom moo yoroon ab këll di màjjal xale yi di ko lekk màggal gi ma njëkkee def Poroxaan ci noonu daal ci la ta gi tàmbalee daayira maam jaare ñuy tàngal café di yóbbu fu nekk ma daayira bi sosu ma ñëw Touba mu nekk fédération ñu tuddee fédération bi ahlu café Touba loolu moo indi kafe gi te soxna Astou nag ba fii may nekk da may dama koy gént di ko gis mu naan mbaa yaa ngi séddale café gi moom doomu Serigne Touba nga xam ne moom la Serigne Touba séddee woon kafe gi da ci daan faj aajo di ci faj jàngoro lépp bu soxla boo mas am ci àdduna wala nga tawat boo dikkee kafe rek lay xel jox la sa ajo faj bu dee jàngoro daan génne nit hôpital ñëw mu xel kafe jox ba docteur yi mënatuñu ko faj buñ dikkee mu kafe jox ko mu naan ko wér loolu moo tax ma tudd axlu kafe Touba bi ma ñëwee Touba koñ bii ma nekk te jii maa fi njëkk yëkkat daayira maam Thiar waaw damaa ñëw ni leen comme Porokhane jub si nag ma jógee Njaaréem ñibbi si Touba ñu luyee oto dem màggali Porokhane ñu luyee oto dem màggali Porokhane ñëw ñu taxawal daayira bi bi ma jógee Njaaréem fii laa ko njëkk taxawalaat ñëpp ku fi nekk rek maa la yóbbu Porokhane ci koñ bii ñu nekk di xayra loolu na ci lañ commencé mu nekk nit ñi di ma woo ci quartier yi ma di ko taxawal ci biir quartier yi ba Touba daj ñu mujj di génn dëkk yi wër Touba di génn ci Afrique ba mu yàgg ñu na Europe ba mu yàgg ñu di dem États-Unis loolu moo waral fédération bi fi mu nekk day xam naa mën naa wat cent cent quatre-vingts daayira daal wala yooyu bu ko ëpp daal côté yooyu daal la waaw wa na cee toll daal waaw man na sëñ Tuubaa ma boole xale yi man xale yi ñoo ma seen bopp xam naa sëñ Tuubaa moo wëlbati seen i rek ñu jublu ci man waaw boo ko tàmbalee ci daara yi ma yëkkati ba ci fédération daayira bi ay xale lañ te xam nga ne mbooloo mu xale moom ku ko jiite rek war ngaa am yaakaar ne li ngay def moom day dem waaw waaw daayira dinañ ci barkeelu kenn ku nekk la loo am di nga koy waaye man sama alal yi nga xam ne maa ko moom sama bopp man kafe ak suukar lay jar man awuma beneen soxla ci àdduna man loo ma gis ma sol ko dañ ma ko may waaw bu dee ay dañ ma koy may bu dee kol dañ ma koy jox addi man lu nekk sama xaalis suñ tubaa may ma ko waaye xaalis bi moomal sama bopp wala xaalis bi ñu ma jox addi kafe ak suukar lay jar wala gasoil bu ñuy defee tournée yi ku xew rek da nga ñu yónnee lettre képp ku xew rek da nga yónnee waa ahlu kafe seen lettre ñu ñëw bu ñu ko yëgee te yónnee woon ko te ñu am possibilité def ko dinañ def def ko addi Sëriñ Tuuba waaye bu dee xew-xew yu mag yi nag moom duñ xaar ñu yëgal ko lu ci mel ne Màggalu Tuuba wala Poroxaan wala Daaru Salaam Mbàkke Kajoor Daaru Musti yooyu dañ ko def suñu xew-xewu bopp bu xewee ñun dañuy dem xam ne fi dëkk bi ñun ñoo ko war a bale ji ba mu set ñëwagu leen ci mbale mi dëkk bu xew ñun ñoo koy bale ji ba mu set suñ ko balee ba mu set su bisu màggal jotee ñu dem séddale fa café ak bépp xeetu berde boo xam ne mën nañ ko def rek danañ def def ko adday sëñ Tuubaa yemul ci murid yi sax ba ci xaadir yeeg laayeen yi ak tiijaan yi képp ku ci xewle boo ñu ko yëgalee dinañ dem joxe fa café def fa luñ mën def ko adday sëñ Tuubaa waaw nit xam nga moom dañoo bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa ba ko woo di nga indi njëmtukaay waaye teewul ñun am nañ suñuy njëmtukaay bopp ndax boo gisee mbalim Tuubaa mi suñu Cheikh Abdou Latif mi ñu jiite dañ koy jox matériel boo xam ne da koy séddale képp koo xam ni nga xam dañoo yor fédération yu mag ak ñun ñuy jiite bale yu mag day day yëkkati ba jox ñu ko ñu denc ko fu ñuy bale dañ koy yóbbaale ñun daal manqué wuñ dara ñu ngi sant suñ ci bopp baax a baax man kuy jaay café rek am naa am na maag yow relation ndax ñun li ñuy jënd ci café ba bari mën nañu koo jënd ci kenn commerçant yu bari xamante nañ usines yi nag moom ñu ngi ci étude di projet yi ñu ngi koy def waaye pareekut waaye nag am na ay machines yoo xam ne ñoo ñuy walal kafe bi waa usine yi moom ñu ngi ci ndax ñun li ñuy defar ci café usine rek moo ñu jagal waa usine nag daa yombewu noonu ñoo ngi def suñuy projet di ko topp dugal nañ ko ñoo ngi koy topp ndànk-ndànk am na fu ñu bëgg a egg kafe ci waa bi waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci def ay démarches la waaye ñun daal li ñu bëgg suñu yëfi bopp ndax nit dafa mu defal la sponsor te la publicité la mën na laa def loolu neexut te ko bëgg a teg lépp ci njàngalam sëriñ bi tàmbalee ci sëriñ bi am ndax mën nañ laa sol loolu la neen lu bokk te la nga yoo xam ne du la arrangé te ñun café gi dañ ko bëgg a teg ci njàngalam sëriñ Touba góor ña ci góor ña jigéen ña ci jigéen ñi ñu sellar ko ndax ni xasida yi selle noonu la café gi selle te te jàng xasida ak naan dafa bokk ci mandarga mi yoon murit te sëriñ bi muy jógee Gabon café rek la fi indaale woon sëriñ indil ko murid yi ñi ci faj aajo di ci jariñu bu ñu amee naqar café Touba moo ñuy jiifal suñu amee bànneex café Touba gi la ñu àndal te mooy suñu naan gi gën a riis moo tax ñun dañ koo jël di ñu màggal waaye loolu suñ ko soxla woon ba tey am nañ ko ndax ni day kaay leen def nangam dem sol ay ñu def leen nanga waaye yooyu ñun ñoo ko nangul ndax am nañ suñ mandarga bopp yi ñu ko changé te yaakaar naa ne ñun suñ bëgg yegg danañ fa egg waaw waaw waaw xam nga café gi nag moom mooy baas bi ni la ko waxee café gi fu ma ne ci àdduna bi moom fa yóbbu moo tax ñu tudd Ahlu Café waaye lépp la ñuy def ndax daara yi tamit ñu ngi ci jàng ubbi nañ 14 daara fukki daara ak ñeent yoo xam ne ay turandooy maam Jaara ñoo ci jàng ak ay turandooy Sëñ Fall ak ñeneen ñu tudd maam Jaara daara yooyu nag li ko waral mooy 2005 bi suñu Moustapha Bassirou woowee maam Jaara yi fekkoon man sama fédération bi yaatu woon na mu ne fédération bu mag bu ne na indi benn maam Jaara man ma dajale téeméeri maam jaara ñu dem daara ji fees ñu arrêté njël ñu ne nañ toog ba defaraat ba ñuy wàcc ñu jëlaat ñeneen bi ma toogee ñaari at jëlaatuñu ma dem wax ko sëñ suñu safa abasir wàccub liggéey ma dem wax ko sëñ Muntaxa ni ko daal am naa lu ma téeméeri maam jaara te xam nga jigéen mënut a toog di xaar ndax mën naa dem ba aase jàng passé am njàng mu ne ma doon laaj loo xam man am naa ndigal ci ubbi leen ay daara mu ne ma waawaaw daa di bind ab leetar jox ma def signé ko def ci kaasam ni ma ubbil ubbil daaray alxuraan te foofu ubbi na doon bànqaas ci poroxaan ndax li nga xam ne mooy ay maam jaar lépp xajuñu poroxaan te poroxaan defuñu fu jàng alxuraan ak xasida ak xam-xam léegi nag ci laa commencé daara ji ma njëkk ubbi fii ci koñ bi mooy ji ma tudde soxna asukaawan sëñ Cheikh Abdou Latif moo àndoon sëriñ sëriñ Abdoul Hakim yal na yàlla yokk leen ñoom moom moo ko léemus keroog ni ma ñëpp dinañ mokkal alxuraan nam ma na maam ñoom fi léemu woon ñëpp wàcc nañ alxuraan ñi mokkal noonu nag ci leen def di ubbi daara yi rek di dem daara ji ñu mas a ubbi ne wax nañ ko sëñ Muntaxa mu yebal sëñ Cheikh Abdou mu ñëw leemal ñu ko ubbil ñu ko noonu lañ ko defee ba mu gën dëkk bi ba tasaaroo lool ba ubbi nañu fukki daara ak yoo xam ne li ciy jàngale gi buñ ko xay xaymaa mat na ñaari junni maam jaar ndax njaaram daara dafa nekk ñu tudd ko waajur sëñ Saliou soxna Faat Jaxate ren bi ñuy conférence juróom benn téeméeri gone nga yoo xam ni ña fa mokkale ñëpp ña fay jàngale ñëpp far ci daara ja lañ mokkale léegi jëlatuñ benn jàngalekat ña fay jàng ña fa mokkale dafa bari ñu jëlaat ñoo ñuy jàngale ci biir daara yi moom foo mën di nekk rek boo ñu woowee rek daara joo gën a jege rek ñu orienté la foofu bu fekkee da ngaa bëgg internat Njaaréem am na internat Tuuba am na internat yi ci des na ñu ci bari na dañuy wàcc di bi waaw waaye yi ci am internat nag koo xam dangaa bëgg internat ñu ñu orienté la ci daara yi nga xam ñoom ñooy internat ku bëgg jàng di wàcc di ñibbi ñu ñu orienté la foofu. amoon na si Moustapha Bassir ba léegi maa ngi daggee carte Maam Jaara ba ci sëñ Mountakha dem nañ ba xam ne sëñ Mountakha fédération yi ni ñu yaatoo ak ni ñu amee doole a jàppale ndax sëñ Mountakha da nga fay toog ñu séddale di séddale ba jeexal ba ñuy dem di yónnee dara sax di jënd ay xar ñëw di ko joxe ak lu xar yu bari bari ñu xam ne kat ñun war ni ñuy daggee carte Maam Jaara war nañ koo joxe tabaski Maam Jaara loolu ci lañ xalaat ne war nañ daayira bu ne ñu laaj la xar wala daayira bu ne ñu cotiser jënd benn xar wala kenn nit ko jëman na jënd xar indi ak ñun liñ am suñu alal bopp ñu jël ko jàppalee ko sëñ bi def ko tabaski maam Jaara xam nga kenn ku nekk da nga am sa métier yoo xam nga da ngaa jël caméra muy métier kii dem dem jàng téer bu xëyee xëy ca kee di jaay maatu su xëyee xëy ca man nag liggéey sëñ Tuubaa mooy sama métier kon dinaa xam nu may programme at mi ba programme bu nekk rek moom man faa dem jàll ca ba ca des ndax loolu mooy sama métier dama ko maîtriser nag si xew bi xew ji at mi yëpp xam naa ko ndax yàgg naa cee dem xam naa benn bu ci bu ma ci nan la koy programme ba dem cee bee dem cee bee dem cee bee. waaw sa nag na léegi yéen bi ngeen cee dem ndax ñun bañ cee dem métti woon na lool tiisoon na métti woon na tumuranke woon nañ lool te boobu naar yi xamuñu Sarsara boo ma saan wax mun la mën a fi Sarsara ndax boobu miinaguñ ko lool lool waaye nag am na ci année boo xam ne am nañ roose ñaari fan. fanaan nañ fa ñi dañuy yóbbu ci école yaa ñuy fanaan ca yooyu ak am na ci année boo xam ndar lañ fanaan ca université bi yooyu dañu bëgg a am na ci année boo xam ne nit ñi ci bari nañ leen a dëpp ay timis ñu leen ci loocit niñ def ren am na ci at moo xam mbo xaaju xaaju mbooloom lañ dëpp timis jaaral leen ci looci yi ñuy dem jaaru ñu sax ci féere bi loolu moo gënoon a metti foofu ma ne du ma dem bàyyi ñooñu ñu fanaan roo sax yenn fa xëy fanaanaat fa ba ci suba ga ca ngoor ñu door ñoo bàyyi am na ci année boo xam ñu ne bu kenn wàcc da ngeen di wàññeeku waaw ndax diggante état ak état la ñoo ci boobu bu kenn wàcc sax naan man na leen ku mokkal alxuraan nag wàcc ñu wàcc loolu moo waral kaamil bi ñu fa wàccee na wàcc ba bari woon nañu mokkal alxuraan ci oto bi ñu wàcc booba ñoo ngi ànd ak maa am suñu moto laa keroog moo doon jàng xat bi sax ñu wàcc biñ commencé wàcce kaamil rek naa di ñu seetaan di ñu ba mu yàgg seef ba moo bu ñu wàccee jàngee kaamil ba jàng xasida yi ba xat na seef ba moo wàccee ci kaw ñëw ne ana ko jiite convoi bi ma ne ko man mu ne léegi mën ngeen a toog bàyyi nañ leen ngeen toog bu ngeen fexee ba ba ministère de effet de transport woote rek dinañ leen bàyyi. bis booba dañoo woo suñ keroog suñ bas coro laa woo wax ko ni ko téye nañu fi ñu dem ñu mu daal di koy wax suñ bas Abdou Khadre ñu woote ministère bi. ji waaye ci lañ daal di woote ñu daal di ñuy bàyyi ñu jéeg bi Sarsar ci jamono El Hadj Baara ñu fi njëkk a dem suñ première année ñu El Hadj Baara keroog moo ñu jox gasoil sax bi ñu demee bi ñu sol ci biir moo ma ko jox ñaanal ma ni ma demal ta ñëw ak jàmm danaa la ñaanal nga dem ñëw ak jàmm waaw at moom nag mooy at mi a métti nga xam bañ demee ne tawte bu bët set wecc wecc te amuñu dara lu ñu tim ba keroog dañoo mujj jël am matt di ko taal di ko di ma ko suur dama xam nga foofu dafa af bu dee taw xam nga day xaw a métti dañoo fanaan ne tawte bu bët set wecc wecc nga xam ne keroog at moom dañoo egg sar saar mi di jot ñu wàññeekuwaat ndax la ñenn ñi toog ci tëli ba ñu ne naare danañ leen jël naata jël si ñenn ñi eeku ñëw ci ba lañ jàpp ñun ñu jàll bañ jàllee avant midi waññeeku waat ndax boobu dara amu fa ay ker yuñ toog sa amu fa ay baas amu fa dara amu fa dañoo egg rek daal di wàcc kam bi ñaan rek daal di waññeeku waat ndax boo taw ba sa bi ñuy egg fajar jot na ay midi lañ jógee maata mu daan dem sarsar ndax boobu xamuñu woon yoon wi sax sëñ Sidi ñëw ñu wàcce kaamil yi rek sëñ Sidi maa ngi ko njëkk taxaw sarsar ndax dafa xëy moom daawut dem sarsar da daan toog rek bu ñu ñëwee mu wàcc kaamil ñu def cérémonie bi foofu magal gi jeex waaye bi ma ñëwee man bi ma demee Sarsaar bi ñu xëy ñëw soxna si dem fa la ma fekk Sarsaar moom li ñu fa nisal bari na ndax xam nga jumaa jaa nga fa béréb ba sëñ Tuubaa doon jullee ma nga fa defar nañ ko ba léegi xam naa war nañ ko kuule ren nisal nañ fa kër sëñ Tuubaa nisal nañ fa ab institut islamique bi nga boo xam ne xale yi nekk si baadi yëpp di jàng dinañ fa a nekk loolu lépp nisal nañ ko fa lu bare bari nisal nañ ko fa ñoo ñaan sëñ mu mag ñi doole ci ñu ko yeggalee Sarsara toll na toll na fi mu nekk foo xam ne ni war nañ cee def serte war cee def lépp lu ñuy def ci màggal yu mag yi ndax Sarsara taxawaayu màggal gu màgg la taxaw ndax Sarsara mooy béréb bi nga mooy date de naissance yu yoonu murit Sarsara fa la yoonu murit soso foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo sëñ sëñ Tuba jaxaraan ci lu ay nelaw jox ko wér du murit wér du maa bismillah foofa lañ ko ko joxe mu foofa la yoonu murit soso kon képp ku de murit rek sa tànk war naa dem Sarsara kon jot na nag état bi jàpp ci bu baax a baax ci fànn yëpp nag ndax metti na ñu ngi ciy def ay démarches kay ñu ngi bind ay leetar da leen ko jox bind nañ leetar joxe na waaye nag xaj na daal leetar yi moo écoute waaye dañ ci war a taxawee dëkk dëkk daal taxawee guñ ko ci waaye nag ñu ngi leen ci woo ñu taxaw ci ndax Sarsara du événement bu ndaw ndax ay mille personnes ngay traversé ñoom di dem bitim réew kon état war na ci jàpp ci fànn yëpp ci dem demukaay yi ci hôtel yi ñu fay dal dalukaay yooyu yëpp état bi war na cee jàpp xaj na nag leetar yee eggagut ndax ñu ngi jàppale ñeneen wax dëgg yàlla waaye nag xaj na dañoo jotagut suñuy kàddu dëgg-dëgg daal bañ xam lañ fay liggéey ak diggante relation biñ def ci diggante suñu diggante ak naar yi nga xam dañoo soppante ngir màggalu Sarsara bi ndax naar yi da ngay gis seen xar kanam ba léegi mbégte mi ci ne bu Sarsara ñëwee ndax njëriñ li leen Sénégalais yi amal foofu kon état bi war na ca mën a jàpp bu baax xam nga ni ma la ko man sama métier du ma ci tàyyi te liggéey sëñ Tuubaa amut sonn naa amut tàyyi naa ndax sëñ Tuubaa dañuy gis nii rek liggéey bi ñuy defe ne sonn nga waaye moom day téye sonn bàyyi la bànneex te te loolu noonu dama koy defe noonu bu doon liggéey sëñ Tuubaa du ko man ndax jógee sar saara jaaruma sama kër kër sëñ Tuubaa gi laa fanaan le 16 ma xëy dem Gabon jógee Gabon dem dem New York jógee fa ñibbi si waat fii loolu nag sëñ bee ci jàpp waaye nag sama métier loolu dafa bokk ci samay programme ci at mi yoo xam ne a ñaan jël nañ avion dañoo jël avion ba Gabon ba ñuy dem maa yomba diggante Libreville ak maa yomba 900 kilomètres oto lañ ko daw ba ñibbisee ba ñuy dem Port Santi ci tabla Bessa fu Sëñ Tuubaa wàccan lañ jël bato bi boobu maag daam juróomi waxtu lañ am ci bato bi wàcc fanaan xëy dem yóbbu ñu tabla Bessa fu sëñ bi juloo mooy tefes gi foofu ma nekkoon ci ndox mi ñu bisiwaat jëlaat bato bi ñëwaat ba Libreville ñu jëlaat ab ñot non ndax capitaine bi moom bi mu ñu gisee rek dafa romb daam mu laxasaay rek mu daal di jox ko loxo su jot boobu lay waaj a taal bato bi bi mu demaatee ba mu yàgg nee na mu toog ba mu yàgg mel dañ ko ne wàccal mu wàcc boobu ñun ñoo ngi neex kenn xamatul foo nekk daa am mii dong moo ci doon nit ndax bato bi dafa métti keroog géej gi dafa yëngu mën na ko ndax soxna si doog wut af mën ko soxna si sant Mbàkke man damaa toog ba mu yàgg man sëñ Tuubaa ma ne wàccal ma ne naa wàcce naan kafe ci suuf daam xel kafe jox ko mën na ko kii mooy soxna maam isa kon kii yàgg naa ko am na sama rakk boo xam moom rek la bëgg daal di ñuy yóbbu ca kaw ne la la ñu ay mat la man sama tane ki ma àndoon ndax moom wàcc na ba xamatul fu mu nekk ñu dalal ñu ca kaw nag mooy foofu ñu toogoon ca kaw a kaw bu leen toog eh, ngelaw li ñu bëgg bañ seqi nag julli fa def fa ñu mu door a ni moom daal moom moom gëm na ne moom moom bato bi sëñ Tuubaa moom wax ñu fa yi doy waar nee na mas naa nekk ci bato bi ay xaaju ko di moteur yëpp fay ci biir géej nee na mu génn sukk tàllal ay loxoom sëñ Tuubaa bëgg gi ma la bëgg sutee dëgg ci man bu ma teg kàcc ma moteur yi yàlla na tàkk nee na fi mu jógee moteur yëpp la ko wax mu ma géej gi géej gi dama fii ne ay 4 heures de matin ay 2 heures de matin sikki bi xeeñ xond bu may teg xasida yi man su may dawal bata bi ay xasida lay teg nee sikki bi ne xon na ci bata bi ku ma ne ko laal parfum ñu ne ma du man ma xam ne seen bee na ci bata bi nee na ba fajar si jot ba heure julli jot la sikki bi door a jot keroog bi ñëw xaalis bu bari la ma nuyoo sax ku xaalis la ñëw jox ma ko ne ma addee Sëñ Tuubaa ne ma nag man maa leen nekkal fi yow da nga a timbal ndax man yàgg ma fexe ba gis tey la ko yàlla dogal waaye maa leen nekkal yéen waa Ahlou Café maa leen nekkal fii ci géej man maa fi représenté Ahlou Café Touba démb rek ñoo ko na maag moom mu mba mbaa ñoo ngi waajal café maagal gi démb waaw waaw bi ma duggee ci géej maa yomb lu sama tànk di xotti ko waaye rus naa koo wax ndax sëñ Touba lam daj foofu ab tànk bu dagg dong ma di ko wax ñoom ñoom ñoo gis sama tànk ma taf ko rek ñu ne ma dama leen daa xotti ko woon ci géej waaye foofu da métti na métti xam man rek ci jamono yi métti woon ci man métti boo xam taroon na lool nga xam ne kon sëñ Tuubaa jamono yom fay na mu lëndëm këris nekk fa lu nekk ne fa kon kon booba nan la melo ñun ñu dem ba maa yomba gis la fa ne sama loxoy xoolal liggéey bi la fa doon matte ma nga fay matte ba léegi lu ma demee ni York kenn xamut sama yaram bi lu mu niroon ndax matte matte te jamono yëpp sëñ Tuubaa nekk la gënoon a tar te suufu suma yomb sëñ Tuubaa am na fa juróomi at ak lu topp foofa taxaw rek mën nga ne sëñ Tuubaa taxaw na fa mu garab gam daan taxaw di julli fa leen taxawoon di julli xob yooyu mu doon watt di ca barkeelu mooy xob doon watt di kon Mayumba fa la lépp xewe niñ ko jëlee Mayumba liñ ko yóbbu Sarsara mu ne tukki bee dama doon liggéey waaye bii dama doon fayeeku Sarsara rendez-vous ma joxante woon ak suñu borom la mu war ma koo fay foofu ñaan nañ ko sëñ Tuubaa de ci kattanu yàlla bu ñu mayee wér gi ak kattan bas nañ ko ci mois de septembre bi dafa nañ ci yéene dem ndax at mu jot ñu dem ci daaw rek lañ ci demut grand mbassane mom sëñ touba wacc na moy mbassane xam nga kon liggéey sëñ touba rek moy dëkk ndax liggéey sëñ touba ci nga mëna and ak ñepp ci nga mëna and ak sa maam ànd ceeg sa yaay ànd ceeg sa doom ànd ceeg say sët te kenn ku ci nek bo demal ci ab xolam liggéey sëñ touba rek ci ne ñi ko bi jaw buñ buñ mënon teggat seen bop fa doon ko ne ko ndox teggat ko ndax liggéey touba ba neex ci yépp bànneex bi ci nekk liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ci li mën a teg law ndax sëñ dafa neex a liggéey boo ko defalee loo man mu defalee loo mën soo ko defalee loo mën mu defalee lu la jomb waaw loolu sax moom yàllaa ko santaane moom jigéen moom yàlla moom waxoon yonent bi sallallahu alayhi ko waxal say doom ak say soxna ak mboolem jigéen ci lii ñu muur seeni yaram ba mu daj yaa ayyuhan nabiyyu kul li azwaajika wa bannaati kon suñ mun taxaw loolu yàlla moo ko digal yàlla moo ko digle parce que mu taxa doo ko tëgg moom dafa topp ci tere yàlla yi rek ci soññee di ko tere di digle li yàlla digle doon de sax ñun bañ koy def jàppe woon nañ ñu ab taf wala ñu naan lay lii wala lay lee waaye dañ tam baax baax la xam nga baax baaxal moom tax baax waaw mën na nga baax baaxal ba yàlla suturaal la nag fekk la ca ab bañ ko defee tere nañ ko ñu bari am na ñu ko nangul am na ñu ñu ko nangulu toon waaye léegi nag ñëpp fekk si nañ ñu par force te nag mooy yoon jigéen dafa war a muur ay cëram ba mu yaramu jigéen awra la kon danga ko war a muur ba mu na xam nga ñun lépp dañ ko teg ci jàngalam sëriñ ndax xam nga xale yu boo leen yoree bañ mësër war nga leen a wutal sécurité ak jigéen ñi comme ñun dañuy dem ay tournée di dem fu nekk kenn ku nekk war nga ko wutal soxna ndax mu mën a sécurité boppam ba mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa te xam nga a góor mu dafa doon saytaane ñu daal ku ci mata am soxna boo gisee ko bëgg danañ la ko fasal ngir yàlla te a dem lépp it ñun ñoo koy def ngir la ngir sàmmee ko suñu bopp ba mën a sellal liggéey bi sëriñ Tuubaa waaw di sant yàlla bu baax rek ci jotaay bi sant naa ci yàlla ba di leen sant ndax yéen it mag liggéey bi ndax gis nañ waa PNAS bi liggéey bi ngeen def Sarsara ci def ko ci lépp lu may def rek ak groupe WhatsApp bi ngeen ubbi muy communication waajal Sarsara ak liggéey bi ñuy defal sëriñ Tuubaa te liggéey bu egg nag yéen a ko fa ndax communication kenn mënu koo fay te gis nañ ni ngeen ci taxawe ba ci seen dikk tey bii rek yitte la ndax xam nañ ni démb la woon julli gi sonn ngeen waaye teewul rek seen yitte yëpp ngeen joyal ko ci man fépp mu ma mën di nekk rek seen xel yéen a ngeen ko def ci man dama gunge ci liggéey bi di ma may doole di ma soññ soññ boo xam ni laa koy def takkaat ko ci sama dëgg ne ci yéen gone yi ma àndal liggéey bi ci ngeen bokk kon li may li rek ci jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa ni ma koy waxee toujours rek liggéeyal Sëriñ Tuubaa mi ngi tàmbalee tàggat say cër ci rek ak fonk sa ñaari waajur surtout ndaw ñi comme ay ndaw la ma la ma yàlla boole loolu laay dénk sama bopp di leen ko dénk di denk lu serigne touba daan denk mag liggey ak jaamu yalla ak muñ lool daal moy sama kaddu yu mujj di soñu wa jigen bu bax rek walbati ñu moytandiku bu baax baax natt yi ak ndeyale ak san jam ray ndax lu ci upp riba la riba dafa ara assalamu alaykum wa rahmatullahi serigne touba mo sa may gi xana gabon nga ko ngoore gile may kay xanaa aras aras nga ko gi